salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet yi seen seen Limametti TV moo ñëwoon tey ji defaat leen beneen reportage def benn micro di laajte lan moo tax xale yi di génn ak autorité yi ak yan conséquence moo leen si mën a fekk ak timit lan motax autorité yi ñom ñuy préférer xalé yu ndaw yi mineur yi si waxtu wo xamanteni criminaliser nañ viol ak harcèlement nga xamanteni amna ay peine 10 ans à la perpétuité xam ni bu ko défé dañuy dugg rek ci population bi def ben taxaw setlu da am lo xamanteni yoon la du yoon parce que xalé yu ndaw yi dañoo nekk ay mineur mais dañu jël seen bop aj ko aj leen aj fu kawe seen bopp boo xamante du yoon. léegi nag da ngay gis benn grand frère gis booy bu ndaw waaw gis ay yaam gën a am génn rek léegi nag ñoom dañ siy profité waaw mooy loolu quoi yaa ma gën a xam ku góor ki conséquence mën na say fekk mais ku jigéen ki si mooy gën a am problème parce que yow nga nekk mineur nekk xale di génn ak grand frère dem ba ëmb fekk la si ndogal fekk la si nga war a am doom jour bu ngay am doom yàlla dogal na sa bakkan des fa ku jigéen ki loolu moo gën a doon danger am sax loolu noonu du yoon. li mu li mu bëgg wax mooy phénomène bi ñaari sens bi ñu ko mën a xool benn sens bi mooy euh, jigéen ñi ñëw euh, si paa yi ah, pour seen njëriñu bopp njëriñ économique parce que dëkk bi dafa doy waar benn benn doy waar boo xam ne euh, kenn mënul ah dund te soxlaloo keneen ki te liggéey dafa ñàkk. ce qui fait que am na famille yoo xam ne benn paa moo moo ci doon liggéey kooku jël na retraite am am na juróomi doom juróom benni doom kooku euh, waa kër gi benn nit moo ci liggéey te nu muy liggéeyee mun nañu nekk salaire bi amul euh, fu mu yem daal euh, nekkul loo xam ne dafa dafa dafa conséquent ba moom mun ci mun moom mun ci dund waa këram yi magam yi yaa papam ak yaayam loolu mais lu fi nekk nit ñi dañuy ñëw ba wax la pousse la yóbbu la si loo xam ne du lol ngay dund parce que système social moo métti suñ la sasee euh, ndawtal sas euh ay euh, premier njëkkee sas le li sas le le sok amulé amulee da nga wuti té sokay koy tay du sama morom wala sa morom les jeunes là ah, mo lay moy génnee mais dila jox mais da nga wuti ko xamné moko yor kan moko yor mais paa ils sont économiquement bien nantis bien dotés et qui ont des besoins yo xamné amuñu ko seen biir kër si biti ni koy jëlee ji su fu ngay des jeunes filles yoo xam ne euh, elles ont 17 18 16 ans hein, qui sont vraiment dans des systèmes euh, extraordinaires loolu yëpp dafa nekk loo xam ne moom mooy amener. loolu loolu de moom baaxul moom mais xam ni avantage bu mag ñi quoi mais xale yu jigéen ñi koy def aussi ñu ñàkk fayda la ndax yaakaar naa boo nekkee xale war nga di ju xool lu baax nga koy def quoi mais man pour man lu tax gars yi di. gars yi di bëgg a génn xale yi affaire yooyu noonu xam ni ñu nekkee ndaw aussi xam xama ndaw moom yaa ma xam kenn ku ne bëgg nekk ak man pour man loolu la quoi mais daal du lu baax daal war nañ ko war na man dañ dañ suñu société société bii ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm si seetaan bi ngeen di seetaan ak ànd bi ngeen di ànd ak seen seen Limametti TV ñu ngi leen di jox rendez-vous ba beneen incha si yeneen numéro